salaamaaleykum ma jël benn téléspectateur li ñu salaamaaleykum. maaleykum salaam. allo. wala tontu Boubacar. oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. naka nga def. maa ngi fi. noo tudd yow. maa ngi Sofia. Sofia foo ñuy wootee. maa ngi wootee Thiès. Sofia vous nous appelez de Thiès. Sofia comment ça se passe à Thiès. Thiès va. ça va bien. ça va bien. ndeysaan yaa ngi en direct ci. Sofia maa ngi kontaan bu baax a baax a baax a baax a baax. Euh, fan nga dëkk ci Thiès exactement. maa ngi dëkk Parcelles. Parcelles Assainies bi Thiès. waaw waaw foofu neex na mbaa. fii neex na kay. Ah, bëggoon souhaiter joyeux anniversaire tonton Youssou Ndour. waaw moom laa ko bëggoon souhaiter. ak ah, yow la ñuy déglu. joyeux anniversaire tonton Youssou. merci beaucoup. mais est-ce que na am sa numéro. waaw dinañ la ko jox à la régie léegi léegi dégg nga. waaw. yow doo ñëw ñu dem Paris Bercy. waaw moom laa bëgg sax. doo Grand Bal. Merci beaucoup. Elle nous a appelé des Parcelles de Thiès. Alors, euh, pour souhaiter joyeux anniversaire, mais quand même, je tiens à encore marquer justement ce titre-là euh, parce que du ma ko jàll am naa yeneen yoo xam dama am ay ay ay exclusivité yoo xam ni euh, démb ba tey barke démb ba tey maa ngi ciy liggéey yooyu yooyu dangeen ko gis ci kanam mais morceau bi j'y tiens pour Babacar Diallo parce que im na na waaye ma jël keneen ba pare allo. allo. allo. allo. allo. allo. Oui, allô Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Oui, bien, merci. Vous vous appelez comment Je m'appelle Khadi. Khadi mmh. Khadi, tu vas bien Bien, merci. En forme, vous nous appelez d'où, Khadi Je vous, vous appelle à À grand mhm. Comment ça se passe à Grand-Yoff Ça se passe bien à grand Alors, euh, tu vas souffler le gâteau avec nous tout à l'heure pour l'anniversaire de Youssou Tu vas souffler le gâteau avec nous D'accord. Tu veux lui chanter Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire. Oh là là, c'est mignon. Joyeux anniversaire. Oh là là, c'est mignon. Joyeux anniversaire, tonton Youssoudour. Joyeux anniversaire. Magnifique. Ça, c'est le chinois, ça. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Merci. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure. Allez, ciao, à tout à l'heure. Merci. Je tiens à ce titre, Mao. Je vais le faire apprécier aux téléspectateurs parce que c'est un, c'est un hymne. Vas-y. suñuy jiitale danga war a doon royukaay na ngay jëkk xëy te fekkee may mujjee teew à notre téléspectateur pour souhaiter joyeux anniversaire à Youssou Ndour en direct sur la télévision Futur Média asalaamaaleykum. maaleykum salaam Boubacar Diallo. Eh, ku baax naka nga def maa ngi lay rëbbégee. wallaay. eh Boubacar Diallo sooy anniversaire Youssou. wallaay noonu yow noo tudd. man Jëmbu Samb la. naka. Jëmbu Samb. Jëmbu Samb fooy wootee yow. Paris. eh et à Paris comment ça se passe à Paris. ah on est en train de préparer rek 2012 Bercy. mais mbaa jënd nga sa billet ba pare. ii jënd naa ko bu yàgg ak Carrefour. ah Carrefour nga ko jëndee ah moo gën a wóor de. ah jënd naa demaat ak sama benn xarit. <laughs> teel a jënd te wuy ma. waaw ah. sa ba mu dagg nag ba matt géej. ii amul benn problème nañ fexe rek ba gis leen ak Boubacar Diallo. waaw non duñ ñu gis. ci waaw waaw waaw waaw. waaw ba pare dañ leen fay defal weekend start samedi ba incha allah weekend start fa lañ koy defalee spécial Paris incha allah. ah oui ah, dina neex moom. bu soobee yàlla mais chantel ko joyeux anniversaire ma xool. su ay anniversaire yu suma jigéen do et eh, def ko en tukulóor. ah dégguma dégguma tugu kii nag dégguma tukulóor nag wax dëgg yàlla. loo dégg maa ngi maa ngi nuyu président Macky Ndeysaan président Macky Sall yàlla sa doom bi Macky la tudd. waaw sama benn doom Macky la moom lañ. ah c'est tout simplement magnifique ñoo koy souhaiter euh, nga nuyu ñu Macky bébé Macky bopp bu eh, baax. en fait damay nuyu sama famille nekk Dakar aussi ñoom Ndeye Soumaré Soxna Kane. oui. oui ah, Ndeye Soumaré Soxna Kane ñoom Fatou Diop ak sama benn doom bu nekk Paris Fatou Fatou. waaw. ak jëkkëram Yaya. oh magnifique mais merci beaucoup. ak Ahmed Ba. ak Ahmed Ba. Medina waay. d' accord merci beaucoup. maa lay jot sama xarit. d' non mais wuy ma. soxna si na nga def. yaa ngi ci rek. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax. naka yi tey. ça va man Aïcha. mais Aïcha mës gis Mbaye Dieye Faye temps yi mu defee kër li kër li. waaw ma gis naa xam naa ko man Medina laa dëkk man ak yow soriaatoo ñu ngi dëkk rii di set man maa ngi dëkk rii 15. rii si ban kër. rii 15 ànd si kër ñoom Alou Ndiaye. kër ñoom grand Alou. waaw grand Alou waaw fi ñu defee grand place bi. xam naa kër ñoom grand Alou rii 15. waaw xam naa kër ñoom Seer Seen Guèye. waaw kër. Faraba. waaw kay waaw. waaw maa xam Rikaz bu baax maa ko ñaay. ah man xam naa la bu dama la daan supporté booy football. ndeysaan <laughs> maa mënoon football te dugal. dugal bii rek. popo ma toj kaay. <laughs> ñu teg ñaari xeer benn droite benn gos noo def ma dugal. waaw kay maa ngi maa ngi maa ngi nii di góorgóorlu. yaa ngi pare mbaa. je l'ai perdu. Euh, ku dëkk ak Mbaye Dieye fay wala kuy mbokk mbay Dieye fay nanga ko woo ne mu ñëw toog ci tele bi parce que dama am lu ma bëgg a teg léegi léegi léegi kuy mbokk Mbaye Dieye Faye kuy mbokk na nga woo Mbaye Dieye Faye mu toog ci télé bi parce que dafa am lu ma nar a teg léegi te bugg naa Mbaye Dieye Faye gisal ko boppam Maam Ndiaye euh, abu Gueye wax leen Mbaye Dieye Faye mu ñëw toog Euh, defal ma maanaam sa bi bi ñu doon teg sànq liggéey bi ba pare balaa may jël Mbaye fay balaa may teg Mbaye Dieye Faye <laughs> liggéey guddi liggéey bëccëg liggéey ngoon liggéey avant liggéey après liggéey pendant Seydou Ba ak Bessel Bass ñoo fi war a nekk ci seetu bi euh, tey ma ñëw ñaan leen maanaam ñaari waxtu yi pour souhaiter Youssou Ndour joyeux anniversaire et puis magnifier encore euh, notre reconnaissance envers ce grand monsieur euh, lui réitérer euh, notre fierté en tant que jeune Sénégalais en tant qu'Africain euh, Youssou Ndour happy birthday salaamaaleykum allo allo Euh, Mbaye fay dafa mel ni toog na de euh, mun naa mun naa ñëw ci sama doom my daughter alors justement dédié à madame Mbaye fay Mame Ndiaye euh, di ko dédié kii Thiana Diagne Thiana Diagne jour J Thiana Diagne jour J mu ma defal grand boubou bi ci seetu bi Thiana Diagne jour J merci beaucoup kenn du yow Thiana Diagne jour J merci beaucoup Tata Thiana demal ma xool. alors gars yëpp a laajte fan la New York la woon c'était en 1987 1987 New York. 1987. Alors, euh, félicitations. Ça a vraiment été un plaisir. Alors, une maîtrise à 100% de la scène. Une maîtrise à 100% de la scène. Kase Sikki mu naanaa bii moom yow laa koy may ak di ko may marché Sandaga yëpp Kase Sikki mu naanaa ak waa marché Sandaga jëlal allez ñu daal di dellu si euh, ci plateau bi jël benn téléspectateur en ligne salaam wa waaw ku baax ñu ngi nuyu di la ziar. Euh, ku baax maa ngi lay fay di la ziar. Eh, Alaaji Thierno Ndiaye ziar maa ngi laa ziar. ku baax kooku kan la. DJ Boups lañ may wax. Sidi Aboubacar. mbay ma njëkk a gëm Rasoul. mbay moo gis rek xalifa la maa ngi lay ziar. waaw siyaare naa la mbay moo gis rek xalifa la. mbay moo gis xalifa la. Seydina Ababacar. maa la ko wax maa ngi lay siyaare. xalifa rasulullah Seydi Aboubacar ibnu Seydi Ajmane. maa ngi lay siyaare benn Seydi Ajmane. ndeysaan maa ngi lay siyaare. maa ngi lay delloo ziar di ñaan suñu borom mu nangul ñu ko. maa ngi am jàmm bu baax a baax di ñaan sunu borom mu dolli ma ko dolli ko jullit yëpp ak doomu aadama yëpp dolli ko ci réew mi mu baawaat bu war a àddina wërngal kepp ah ñun de suñu waa ji moo doon anniversaire tey ndeysaan ah, gaa yi ñëpp jaar fi ma dégg sànq Amadou Mbaye Garmi dégg Lamine Samba dégg Mbaye Dieye Faye léegi nag ma daal di dégg El Hadj Thierno Ndiaye sama xol sedd lool ci anniversaire yu si mm, sunu jooju xanaa moytoroɓe a ah. nit su amee colère Seydi ah. Aboubacar waaw ragal ko ah. boo ko tooñee colère moo koy sàdd ndeysaan hmm. ku am colère mënoo am ngor ndax ngor a di sàmm colère mm-hmm. am ngor waaw am ngar ni mm-hmm. am colère mm-hmm. say wareel te di ko bu ñu nee gor la booy boo nga dóor sa loxo xam ne gor piir ndeysaan doon gor nga mën a ndeysaan ci juddu waaye jikkoo koy couleur dëgg la Youssou Ndour du ma sori ci moom mhm. doom bu làq ngërëm woy juram mhm. ragal ko te booy wut xarit xaritoon ak moom dëgg la lu manqué ci yow dina ko complété mhm. am na ngërëm woy juram Mm-hmm. ay woy juróom doyatul mbokkam yëpp kenn du ko xarab ndeysaan du meen du geño du dëkkandoo mm-hmm. du wóllare lan du ko ci dab mm-hmm. du ñu mu bokkal di liggéey ak ñoom ak ña xam ne leen yilif ci biir liggéey bi réew mi it dinaa la wax lenn de booy bu nga bind lu mu ci réew mi am ko di ko jox liñ sàkku ci réew mi am ko jikko ma ko jox. Hmm. dëgg la. lu mu bëgg a doxal ci réew mi ñu ànd ak moom doxalaale ko mu ñu dox ndax jikko moo ko jox. ndeysaan. ah ah tonton dem na crédit ba matul ah, dinaa ko yónnee crédit El Hadj Thierno dinaa ko yónnee crédit incha may kontaan ci moom bu baax a baax a baax a baax a baax a baax euh, damay dellu 1994 Bruxelles encore demal ma xool. a guddee yi jamonoy ak yi jamono dafa guddee suñu jamono maam yi ñoom te ñoom te ko woon ayoo waaw ma jël beneen téléspectateur allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa ah, kooku ñu ngi koy wax euh, Cheikh Niane bi dëkk Medina. grand Cheikh Niane yëngu destination yëngu destination yëngu vraiment ñu ngi dellu di dëkk ci euh, Youssou Ndour. ndeysaan. ndax euh, Medina ñoo bokk suñu Medina ba ñu jógee. ndeysaan ndeysaan Cheikh Niane. kooku dañ koy mu yàgg fi wér. Mm-hmm. mu gën a jëm si kanam ak yéen ñi ñu bokk liggéey bi yëpp. Mm-hmm. ndax ñun léegi naa gis mbir yàgg nañoo siggil. ndeysaan. siggil bi mooy lan mooy booba théâtre nañu amoon. Mm-hmm. bu ñu waroon gañe coupe bi gis mbir nañu yaakaar ndax bu bu ñu gañoon ba mu def demi final moom bu wooyee rek. Uh-huh. ñu ñu jël coupe ba. ndeysaan ndeysaan kon kooku dañ koy ñaan ak xol bu sedd guy. Ah, ndeysaan Cheikh ñaan ndeysaan. loolu mu dem ca kanam ca kaw ca kanam yéen ñi ko wër ñëpp. dëgg la dëgg la Cheikh. kon nag maa jigéen. waaw dëgg la. li ñu li ñu bëgg wax yëpp eh, day day ëpp suñu xol. mais Cheikh Niane destination yëngu leen maa ngi kontaan ci yow bu baax a baax a baax. jërëjëf mu ne moom nee woon na ma Cheikh Niane ma ne ko maanaam ma ne yow mënoo wax yow jëf nga man yow duñu la ma waxoon loolu. Cheikh V Gates. <laughs> waaye li demoon naa jëm wax si moom tey. Cheikh V Gates. waaye yow Dankeschön alles Gute. ja woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. du kommst aus Deutschland. wo arbeit wo arbeitet ihr? Ah, ja ich arbeite in euh, wie heißt euh, in uh, in München. You do Arbeit in München? München, ja. Ja, ich heiße Boubacar Diallo. Ich komme aus Senegal und du Arbeit in TFM. Und ja, ich, ich, ich freue mich auch, dich äh, zu hören. Ja. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Danke. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Dankeschön. Danke, Dankeschön, Schachnian. Auf Wiedersehen.

Thomas Poulot. Merci beaucoup, Mami. Et puis l'ensemble des équipes, merci beaucoup. Euh, Rendez-vous sur Dieu, Ce sera justement très vite. Alors ce soir, c'est la rediffusion de la cérémonie de clôture de Un Café Avec. Ce sera ce soir la de la cérémonie de clôture de Un Café Avec au Théâtre National Daniel Sorano. Ce sera ce soir sur cette antenne de la télévision Futur Média. Portez-vous bien. Exaldex Nyatamba. Ce sera aussi ce soir. Merci. Ça a été un plaisir. Salut à toutes et à tous. Ciao et bonne fin de soirée avec nos programmes. Live, live television, live, live TV, live. dootu woon a gis bu la dal ma ne fël fël